Production présente. salaamaaleykum mbokk yi ñu suivre seen site internet gastonproduction.com tey nag ñu ñëw yéen indi leen spécial Thiat bu Waalo mu waroon am bëre bu mu war a def ci digganteem ak Ama bu Malika adversaire am tey nag ñu war leen dalal ñoom ñaar ñëpp mais contretemps dafa am si diggante bi Ama bu Malika absenté ñu dalal Thiat bu Waalo Thiat bu Waalo ñu ngi lay nuyu. onze billah onze billah bismillah inna wa na yàlla jërëjëf borom Tuubaa jërëjëf borom Tuubaa ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur di ñaanal sama yaay mu yàgg fi lool tu wër di ñaanal sama yaay mère Ndeye Ngom suñu borom xale ko àjjana yi gën a kawe si barke yonent bi ak bu néew bépp jullit di ñaanal suñu mu yàgg fi lool te ànd ak si barke yonent bi waaw lay fay bu baax a baax bu maa ngi lay fay ni bu baax. waaye caat tey jii ñu xamul caat bu waalo di dégg caat bu waalo caat bu waalo ñu gis sa tur yegg na foo xamante ne ni bari xàmmewuñu jëmm ji. te jii ñooñu boo leen wax caat bu waalo kan mooy caat bu waalo. caat bu waalo mooy benn Baye Fall bu nekk nii rek waaw du dund Baye Fall man moom Baye Fall laa oyof rek laay jaayee nit ñi moom waaw waaye du ay rëy loolu noonu maa nekk nii nekk Baye Fall rek simple rek waaw. Ah, Baye Fall ba si nappee nii teeg teeg sa forme toog naan Baye Fall laa nii di napp gars yi nii si bët. noo damay liggéey làmb tax ma yàq sama activité yëpp. waaw làmb moo tax may ak sama activité yëpp yooyu nag dagg naa ko waaye maa ngi sant Sam Ginda Dio Mam Mor Baabu Lamine Baabu grand yoro fii sa France grand pa fay non sama si loolu loolu bi la nuyoo bi xam nga nit ku ne ak sa nuyoo grand yoro si sa France ñooñ faaw ma nuyu leen quoi xam nga ñooñ def sama ubbeekuwaay lan gaynde taale non fii bii bi création moo fi jaar sama xarit mi àndal guddeeg bëccëg moo mu ne ab yee lii nga dem premièrement la te signature yi beneen bi ñëw sax may gën a dàbbali ah bii bi création moo fi jaar ni kaw ba suuf ah. waaw mais da nga am combat bu mag nag yaa ngi si dix combats huit victoires deux défaites ah. nga ñëw jël ama bu mali Malika tur bi rek dafa rëy a ama nga jiital de jot naa bëreeg benn ama jot naa bëreeg benn bi defal ko bagage bii day jëlaat bagage ah loolu kay ragalu ma ko man kay mais est-ce que ama yi benn la kon non bii man ci grand combat laa jugee wàcc bëre kii mais spécial ngay bëri si diggante Bombardier Eumeu Sène aussi. déggoo lu ma man ñooñu nag sama bët si ñooñu laa ko teg kër ga baraag la courant ñëwagul ndox ñëwagul dañoo teel a ñàkk bàyyi maire bi mën na ba sonn di dang dangi toog ba nii bépp activité teral ko loon bëgg man li may wax chaque jour laay wax. Mhm. li may wax chaque jour benn wax la bis bu sama yaay toogee si kaw rek na ma xale lu ñuy def suuf su ma yàlla reyee garaaw. wàcc naa man mi wét boobu la am rêve boobu kase. la ngaa teg sa bët si ñoom Bombardier Eumeu Sène. jàkkaarloog sa adversaire ba pare. parce que Ama Baldé def na lu ne si làmb yi. déggoo li ma la wax sama bët si kàttanu yàlla ak bu làmb jaa bu si yàlla àndee lu yàlla di maye bu dañut su ma bëree ba pare di nga ne kii lu mu wax dëgg la sama bët si ñoom laa ko teg te di nga xam ne sama bët si ñoom laa ko teg. mais seen combat yéen ñaar doxoon ko yomb na. non man damaa amoon problème adversaire. waaw damaa amoon problème adversaire moo tax ma bëree ak moom wàcc bëree ak moom lan nga jàpp ni mooy problème adversaire. man damaa naqare utal adversaire. caat bu waalo man damaa naqare utal adversaire. man. gars yi dañu la ragal. man cat boobu laa am kon man bëri naa bu yàgg man mun naa jóge si ko jóge si grand combat daan ñagas mënoo bëree ba léegi. man gars yi la ñuy ragal si caat bu waalo. ah man ci lii baax la amul ruq bi sedd. kii waa écurie Waalo yab ma suñu papa Alioune Seye 2. Lac de Guiers 2. Lirou Diagne suñu coach Arouna Sall. Souleymane Ba. ñooñu dañ maa yeb man yaakaar ay ñoom match man ma yeb ñaax ma ñëpp confirmé nañ man maa war a ñëw confirmé fu mu ne nii. mais gis nañu ascension bi ngeen am waa écurie Waalo ñëpp jógee ci victoire macha allah. ñun a ñëw génnaat. ñun écurie Waalo lu am foofu amul benn écurie ñun ñoo bokk nday bokk baay ñooy solandoo ay yére ñooy demandoo ku am sa soxla boo demee ab sa daal morom sol dem loolu jafe na sa ay mbër. Mhm. loolu moom yàllaa ñu ko sutura. tey nga waroon jàkkaarloog sa adversaire dernière minute mu woo ma ma Mara moo ko woo fu mu ñëw. Mara a <laughs> ah, tey moo entraîné te gëm xam ne géew ba mag moo fay des na entraîné gëm boppam de. yow si Mara. kan man man déggoo li ma la wax. maa ngi nii damaa respecté sama contrat ba moo wooyee. waaw damaa jóge entraînement direct ñëw moo dama xaw a yéene tuuti sax. dëgg la waaw comme contrat moom ni dama ko rappelé bu ñëwoon sax ñu gisee mooy dàq. waaye xëy na moom nit ñi. bu ma laajoon ci ñum waa dëkk ñum dëkk dina ko am nga combat. mais yéen ñaar kan moo si gën a am combat. waaye man man mii mais sa lamb ji. sa adversaire ay woote de. moo na dugg ma ragaluma loolu mu xam na mu ba. ama maa ngi ziar. dëpp jàmm. ah sa adversaire yi mu ngi nii toog de nee na cin bi baax la dox bu nekkay baax. Ah. waaw. Ah, loolu nga si bëgg. waaw. yow lan nga fas yéene indi si combat ba. combat ba ah comme lu mu laaj rek ñee moom lu mu laaj rek ñu indi ko xeex ak bëreeg lépp. mais saa waay neen dafa naqaree utal adversaire yow nga jël avance am. non ngi lay dégg de boo amee loo a loo koy wax. Ah, di ko sant di ko gërëm rek lu mu jël avance bi di ko nuyu tamit. mbër wuyul. moom maa ngi koy maa ngi koy bu baax. di ko ñaanal jàmm ak salaam bu bis ba yàlla may ma si kawam. non li nga waxoon léegi nii laa nga dellu si. non kii kay man maa koy ñaanal moom bi jël sama avance laay ñaanal. moom bu ma jëlul woon fu mu ma bëre man kay maa koy ñaanal man bu ma jëlul woon. Hmm. man association promoteur de Guédiawaye. Hmm. promoteur yi association ménagère yi nga xam ne ñoo yor entraîneur mbëri. Hmm. seen combat bi la neuf douze adversaires mu wër pour mu bëre grand combat aw ma ko. kon kay moom bu ma jëlee dama koy ñaanal ma am tal am feke ba bis ba. <laughs> maa ngi koy ñaanal bu baax. wuyul nga ni. allo. mi ngi lay dégg waaw. mais loolu ay wax la rek. adversaire moom. des fois ñun ñii sax dañuy bëgg a am adversaire mu tëñu man boobu ba léegi ba ma bëree sama combat bi baax ñaata adversaire ba jox ëpp na kenn. Ah. loolu loolu bul jàpp ne boo amul adversaire dañ la ragal wala dix ans affaire yu mel noonu des fois bëgg a bëree mais heure ngay bëgg a bëree. Mm-hmm. heure bi nga bëggee a bëre bu jotee rek da am combat si lu yomb. Mm-hmm. man tam ba mu bëree ba léegi ñaata adversaire la fi jox. ëpp mm-hmm. na 15. wallaahi ëpp na ko. te gaay gaay moom fii ragal kenn ragalu fi kenn xam nga mais combat war a taxaw rek ngeen war a bëre rek da di bëre. waaw mais yàlla baax na ba maa moom taxaw na le 27 yàggatul. waaw di ko wax rek ñu waaj rek. waaw. ñu ñu ñu bañ a def loo xam ne day day déplané supporters yeeg yooyu rek nañ ñëw bëre ci fulla ak rek. Mhm. mais saa ngi ñàkk fi mu toog de. mu ngi ñàkk ah. waaw mu ngi de. ah foo nekk. ah foo nekk dama fan ah am na lu ma jot a dégg de. ah, ah da nga dem uti xar fa fuufu. non waaye loolu waaye. Ah. saa ngi nii toog di entraîner rek de mi ngi lay dégg de. ah sa a nga jàpp ne daa war a entraîner. entraînement moom ku ko laaj. ñoo ko entraînement ku perewul lañ ah nee na entraînement ku parewul lañ koy wax. ah ku parewul. waaw. ah ñu pare nag bay récupérer. pare mais yow lal nga naral waa sa wax ji lan nga naral waa ah waa ñëw. pare nga pour xeex ak moom. bu bëggee. na ñëw ñu tànk yi xeex ba pare doo ko bëre. wuyul. yow mun gis ku jàmmarloo écurie Waalo dóorante moom. yaa ngi dégg. mu ne. ndax mos ngaa gis ku jàmmarloo écurie Waalo di xeex ak ñoom. ne ko ñagas mu mujjee daan six kaw la am wax ko loolu mu dégg ko. Eh, ñagas mu daan six kaw la am. six kaw la am kii dégg man ma juddoo gunaas màggee gunaas. ki yaroo gunaas du judd muy taa ngay sànni léegi boo sànni on napp jën kon maa ngi ci ferte. waaw wax waay. nee na nga wax leneen. na ma laa ñim dëkkal ba pare balaa mooy wax na ma laaj ñim dëkkal. mi ngi lay dégg. nag dama laa xam te eh, da da nga xam la. dama laa xam te xamoo ma yow ñagas mi ngay wax ne. kaaw la am xeex daa daw xeex bi. daa ñëw bëre da xeexoo moom comme sa xeexkat nga. maa ngi sant yàlla si xam bi ma xam bu baax ndax mbër mbër mu prouvé moom ñu xam la ku prouvé duñ la xam man fépp laay dugg. fépp foo xalaat àll baak ku ne pare pour bëri ko koñam kan barke Muhammadu Rasulullahi wallahi azim bu bëggoon ma daan ko seen ëtt kër daan ko seen bayaalu kër daan ko seen biir kër daan ko teg na route nationale bi mu war a jaar daan ko stade ba. ama waaw. waaw ñu lay dégg. moom lu muy wax noonu. waaw. wallaahi ñu bëri jaar nañ fi di wax yooyu di mbelelal wax mais xam nga am na ñoo xam ne. Mhm. ñoom mënuñu wax dañuy jëf. Mhm. laa koy dolli rek. Mhm. ah. waaw. bi muy ñëw ci Malika. waaw. dafa ko fay romb góos ak droit. fu muy ñëw si Malika. waaw. ah loolu code la de. <laughs> daa dëgër fiir rek. daa dëgër fiir rek. xam nga di nga di nga di nga di nga song nit yaakaar ne da lay jàppale fekk ne mu ngi lay xaw a rey. Ah, baa da ko téye si poñ. <laughs> mais li wax da ko xam ne. yàlla yàlla mais li nga wax ni tax na waa ji dootu fa ñëwati de. waaw ah, déggoo la wax boo neexee. nan bokk saal bu ñuy ne bokk fu ñuy contacter sa ngoon bokk lal bi ñuy tëdd di lekk di naan. man mbër laa damaa gëm sam bopp. entraînement lan ma sant lekk bu suur tëdd bu nelaw. ay àndaw njaay nekk sama ginnaaw. lijjantil ma combat bi moo ci jàpp bu baax dox lépp. maître dan bu Abdou maître Jali kan nga xam ne combat bi moom combat am la moom moom may wax nii man xanaa kii damaa xamul man ma bëreeg champion bu mu muy wax. nee ko nee ko waaw nga di ko nag maa ngi benn wax. waaw ñagas mayoon naa ko soobee fura ma yoo moom na laaj ci xamee toog comme yaa ba pare. dégg delluwaat ci. dama ko yóbbante benn wax signature ba laa ko bëggoon bu ñu jàkkaaroo ndax dafa daw. nee ko na téye soobee fura ma yoo xamee toog comme yaa ne ko téye ba pare. dineen dama xam kon na téye xamee tookam yaa ba pare dégg nga kooku xanaa xanaa rapport la <laughs> ah jam jàmp américain la fi indi de jëmp américain bi dafa la laal ay naayigam la laal ay Lakersam ñoo toog non fii bii bee fi jaar wax naa la ko bii création moo fi jaar waaw te njool Baye Fall sa ñëw des ci création ñëwagul moom ñëwagul njool Baye Fall ñëwagul ak ñeneen ñi waa ñu ngi lay dégg. ma ne ah, yow dan sa dan la yooyu. maître dan dan la ay bagages la demee noonu. waaw xaj xajal naa ko. si bopp boobu mun na ñëw. Ah. Ah, xajal naa ko na ñëw xajal naa ko. mais nag mais nag waroo woon daw tey de daa mel na nga daw de waaye ñu ne na nga ko daw. wóor na yàlla nag wala yabaate mënul weesu lii nag temps bi mu wax si crédit mënu koo toog fi ñu wax ko. dañuy wax daan quoi wax dëgg si la contrat lañ signé. ñëpp am seen activité di ko dox. Mm-hmm. temps bi mu wax si téléphone bi billaay wallaay du question dara de waaye mënoon na koo ñëw fi ñu toog wax ko mu neex ñu jaay émission bi mm-hmm. woo suñuy nit ñu baax ñuy jàppale ndax mm-hmm. combat bi dañu war a jàppale man ñaanuma yàlla Eumeu Sène ak Bombardier kenn yowul ma supporter mm-hmm. damaa ñaan yàlla su ma yëkkatee sama loxo ñu xam ne stade bi sama stade la man maa émigré arène nationale maa émigré arène nationale stade bi sama stade la bëgguma Eumeu Sène ak Bombardier kenn ëppale ma supporter kooku sas naa ko àndaw ak maître dan iseenu dañ see war a jàpp grand pafay sa état yi sas naa ko ñooñ dañ see war a jàpp daam ñooñ dañ see war a jàpp Serigne Gueye Mouride Sarr Ibrahima Sarr groupe fan kër WhatsApp bi ñooñu bëgguma ñi àndal ba ma nekkee xale ba lii du ma lim ñoom ñëpp na ñëw jàpp si ci combat bi stade bi kenn war maa ko supporter man kii xamul ma la xamal kii xamul ma la xamal wax dëgg fa yàlla li yàlla di may bu dañut hmm. du ma ak moom xaw ma nag mu dañ du yaa ak nga ama loolu yaa ko déggal sa bopp neen di yëg ñaar. ma ne. waaw. yàlla mun na laa may mais koy dindi doo ko yëg. koy am loo bett. léegi yow ama boo amoon looy wax sa adversaire pour kàddu mujj lan lay doon. man moom pour fu mu toll nii nii mhm. aw ma lu ma koy wax. xam na laa koy wax. Mhm. Ah, incha allah. ñu hmm. dase arène nationale. boobaa lay comprendre. parce hmm? que alxuraan côté mobilisation bi fas toll. ah. mobilisation bi loolu loolu moom pare nañ ci bu yàgg. loolu moom. saa waay nee mooy borom arène nationale de. saa waay nee mooy borom arène nationale. ah mooy borom. waaw. ah te loolu arène nationale ba mu ubbee ba léegi ñu ne ñoo ko man damaa bëri foofu bëriwaat maa ko jëm ubbi man damaa bëri foofu daan Bébé Garga sept combat musul daanu ma daan ko fa waaw <laughs> bëri ñagas daan ko fa ah dégg nga de saa si victoire la jógee nga ko wax ñëpp bëriw bëriw man dama fa bëree naa te damay ñaan yàlla mu sax daax dama war a teeral sama yaay de yow mi yaa may téye dama la koy teel a wax nga téye damaa war a teeral sama yaay daa mbana ba sonn dama war a teeral de du yaa yaa may téye de dégg nga ngeen ko yóbbante nga jox ko. ah. <laughs> ama yaa ngi yaa yaa ngi gën a yan taxawaay ji mer de waaye yaa gën a ñàkk fi mu toog. ci de si kàttanu yàlla ak yonent bi dinaa ko daan ba toog si ko ah. mais yow kañ ngay ñëw plateau bi toog. Mm. yàlla mm-hmm. mm-hmm. ah, ñu gënaloon. ngi lay ñu lay jaajëfal bu baax. waaw waaw waaw di la sant tamit. jaajëf di rek. di la ñaanal jàmm mm-hmm. aussi. waaw wala 27 rek incha allah jaajëf champion. saa saa yi defee na la de. man yenn saa yi nag mbëri dañ lay wax rek li mu wax si téléphone bi ñu jàkkaaroo nii mu jàkkaaroo ma. boobu moom la doon gën may wax muy wax. waaw ndax per Gasson daa fekk ñu gën a tàng mu yël leen dool leen si journée bi. Mm-hmm. suñu ab Abdou Lakhane Ndiaye jàpp si. Mm-hmm. affaire yi yëpp nooy kon daa war a ñëw toog fi ñu jëflante. Mm-hmm. waaw na ñëw toog fii ñu jëflante waxante. bu bis làmb jaa ñu jëflante ba mu saf sap. bu làmb jaa fu ma ne ko taxawal fii fa lay taxaw su ma ne ko puusal fii fii day puus. yow yaay déggoo li ma la wax. na ñëw taxaw lu ma saf yëpp maa woy def. non man mi ma jaaxaaloo moo tax ngay wax loolu fekkoon est-ce que Ama fi toogoon nii wax loolu. c'est que man déggoo li ma la wax man nee na dam wax na fi wax bu am solo. dama laa xam taxamoo ma. mbër boo dégg man damaa laa xam taxamoo ma rek jàppal na mbër moomu génnul di dox di wari ji yeneen mbër bi mhm. man damay génn di compétir di bëre lamb simple. kon c'est normal mu xam ma. di bëreeg seen koñ daan seen leader yi foofu doole yëpp kon c'est normal mu xam ma c'est normal mu xam ma ku bëreeg seen leader yi foofu doole yi gën a mag daan leen ñii coow nga daan leen kon kay c'est normal mu xam ma man ma de lamb laa def sama métier làmb tax ma bàyyi sama liggéey. kon est jël si revanche waa kon. moo revanche fa déggoo li ma la wax tolloo ma fu may mayee sens ndax damaa war a sangu si sens ndax kër ga baraag la te daa moo bul. mais la tollaguma fu may maye sens ndax maire dafa war a sangu sens daal di jàkkaarloog ak écran plat te yooyu yëpp amagul kon kii moo waay kii newul ku may téye. mais man lu ma jaaxal maanaam mooy yow da ngay wax ni comme si que daan nga waaji ba pare confiance bu ma solo am solo nga àndal. suñu borom nee na gëm-gëm ak ànd ak aji muñ te man damay gëm te muñ laa. damay dama am sama ngëm-ngëm te aji muñ laa damaa ñaan yàlla maire bi ubbi frigo wu ndawal frigo wu ginaar frigo wu lépp mérito na ko ndax sonn na ko fa dañ koo liggéey suñu yaay dañoo sonn man damaa teel a ñàkk bàyyi damaa judd fekk sama yaay sonn lu mala la dafa dégg ko bu doon man ak man jarul may def dara góor la sama yaay moo tax may reyante déggoo mën la sama yaay bu dëkkee si étage na ma xale yi lu ñuy def si suuf yàlla bu ma reyee jour boobu wàcc na man réef boobu laa am xamal laa ma ñëndee beneen réef man réef boobu laa am kase sama àdduna amaatuma beneen réef mais rêve boobu pour nga am ko faa nga jaar ci mbëri metti rayante bii si yoon bii te ñi du ñuy ñoo ma koy xañ mais li ngay wax ni fekkee ama tamit loolu la gëm tamit combat du yomb nit lu mu gëm-gëm da koy wax du ko jëfee bu ba mu duggee mu wax lu mu jëfee man li ma gëm li ma gëm la te lu nekk si man la te lu may ñaan sama borom pour mu defal ma ko la danga da nga wax nga ni bëri ngaa ñagas ñagas am six kaw waaw moom nee na xeexoo ak ñagas xeexuma ak ñagas nee ko ñoo ñemoon bëri ngaa ñagas man ñooñu man ñi ma bëreel la ñoom ñoom ñemoon bëreel ñooñu. lu tax man ñemoon bëreel lool. man bëreel naa ay polmeri seen koñ Moussa daanu si sept victoire tamit moom maa ko daan. ko yow Moussa daanu rek nga daan. man déggoo li ma la wax jànkee ni ci laabu ñu Moussa daan yëpp maa leen daan ama ba ama bi wax Moussa daanu maa ko daan kon kay moom ñu Moussa daan yëpp maa leen daan si làmb ji ñu Moussa daan ñëpp kon nag dama siy sant yàlla bu baax. di ko woyaan di ko ñaan bopp xeex ak moom si combat man su may bëree bëre dóor lañ wax man lépp laa pere duma ma bàyyi benn amul benn may bàyyi bëre dóor lañ wax. mais boo gisee bébé Ama Ama bu Malika lu tuddee boppam. te Malika gi yëpp nekk seen ginnaaw. tey jii yëpp eh, ma fa ruq pantere ëppale wu ma ko fa. dégg nga leen lay wax ruq ëppale wu ma ko fa. nee na fi ngay dem di ñaanlu xam na fa. déglu ko fu may ñaanlu sama kër mbokk la ñoo dëkk na ko xam maa fu may ñaanlu. ëppale ma fa ruq. ëppale wu Malika. maa ko ubbi supporter fuuf ay waxee ragal la ay fa ngay ñaan lu ma bàyyi sama nit sëñ Babacar maa ngi koy sant bu baax sama premier combat léegi mu ngi ciy jàpp sëñ Cheikh Diagne Baye Cheikh Sène maa ngi koy sant dañ ciy jàpp bu baax a baax Alaaji Omar maa leen di la grand marabout Baye Ngañ maa ngi koy sant sëñ Mor Fall Kéemaan da lay ñaanal di la bokk léegi dañ ciy jàpp bala ngaa sant dañuy ñëwaat si dara mos ngaa bëreel Gaston production maa ngi doog a par sama début kereel yëpp Dieye production moo ëpp lamb yi ma tëggal tëggal na ma sept a mm-hmm. waa Dieye production mm-hmm. te rêve woon damaa rêve woon bëri bis bu mag mm-hmm. ndax ndaanaan yëpp si bis bu mag lañ génnee te damaa war a wane sama bopp si bis bu mag war na sama bët si ñoom ñaar ñooñu laa wax si kàttanu yàlla ak mbaaxam gëm naa ne bu ma bëree pare dina xam ne man sama bis sama bët si ñaar ñooñu laa ko si am fierté bu nag si bis bi maa ngi wax na suma waa koñ yëpp nañ mobilisation ñun ñoom ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ci taatu stade bi leen dëkk duñ jël oto duñ jël super man mbër bi sax mën naa waaxu dugg kon kenn mënoo faa dara man damay lu may wax sama fula waa koñ bi yëpp génn bañ naa ko ba match président moom mbaam la yor combat bii nii ni ma koy yëglee dafa métti ku ma siy yëgal dama naa la boo ñëwul dama lay bàyyi damaa jël caméra uniquement pour may jëlal supporter yi su ma bëree pare teg ko ku ñëwul ma bàyyi la ah leer na. ku ñëwul nga bàyyi bi ku ñëwul dama lay bàyyi. sama xarit yépp laa si woo bii du tur ñoom ñëpp ñuma ma juddoondoo màggandoo. foondoo kan. maître dan bu Abdou Dialy kan combat bi combat am la Abdou Dialy kan. maître dan da siy jàpp bu baax a baax a baax a baax a dan lépp la defal. grand Andaw njaay nag amuñu foyam. Andaw Andaw. bu da ciy jàpp ci côté bi yëg lépp àndaw combat bi dox na si wax na si lijjanti na ba sonn pour ma bëre. kon dañ koy ñaanal moom suñu borom yoo xéwale taalibe Maam Seera Fall be àndaw Ndiaye. mu ngi ciy jàpp bu baax. combat bi lu mu wax dafa leer mobiliser nit ñi rek. wàllum biyee bàyyi kon na ñëpp génn ñëw. waaw di woo jaraaf Xaadim Mbay jaraaf ñoo ngi koy woo Xaadim Mbay jaraaf Pikine ñoo ngi koy woo na ñëw jàpp si combat bi doomam laa ñëw bokk benn yaay. na si ñëw jàpp. ñu si war a jàpp autorité dama bari grand Yoro si sa France grand Pablo ñoo ngi koy woo si combat bi Dame Lamine Baye Fall ñoo ñëpp nañ ñëw jàpp. ñu si war a jàpp sama autorité koñ bii bëgguma benn grand toog suñu koñ te dugg si loxoom làmb ji ñëpp laa bëgg ñu jàpp si. incha allah si kàttanu yàlla ak yonent bi nañ dugal seen loxo. du question lii nan ma jàppale mobilisation ma duy stade ba mu fees. Mm-hmm. man stade bi laa bëgg a duy ba Eumeu Sène ak Bombardier bëgguma yóbbul ma dara. Mm-hmm. damaa bëgg dugg su ma duggee garçon ne kii kat yi yéex naa ko dëgg ma loolu laa bëgg rêve boobu laa am. mais kontaan nañ si yow kàddu gu mujj. kàddu gu mujj gi nag maa ngi sant ñëpp di nuyu staff caatu waalo bi yëpp waa syndicat Papa Ndiaye laay taalibu si ñëpp du këram gi Modou bu caat waa kafe ga maa ngi leen di ziar ñëpp kafe ga bii nag du ma sama gars yi di lim ay tur du ma tey sama mafia bépp maa ngi leen lim ñu ma foo sama mag ñeeg ñëpp du ma lim tur su ma daanee ba yàlla may ma ndam ma toog ma gërëm leen ñi war a jàpp si combat bi laay woo monsieur le maire Baydiba ñoo ngi koy woo si combat na si jàpp monsieur le maire Baydiba Modou Gueye jàmbaar ñoo ngi koy woo si combat bi na si dugal loxom bu baax Abdou Salam ñoo ngi koy woo si combat bi grand abuka ñoo ngi koy woo si combat bi maa ngi woo si combat bi ñii nag ñuy woo c'est normal ndax ñoo ñuy dimbali mm-hmm. waaw Gaynde Badiane maa ngi ko siy woo Pa Cheikh Yade maa ngi koy woo si làmb ji sama paala yàgg na si man mm-hmm. maa ngi ko si woo Ahmed Aidara bu Géejawaay maa ngi lay woo si làmb ji man caat bu waalo waaw maa ngi lay woo pour nga jàpp ci bu baax maa ngi koy woo pour mu jàpp si képp nag ku déggul kii nag xaman ne émission yi des na des na lu bëri des na lu bëri sama grand nag maa ngi koy woo bu baax a baax a baax sama grand pa pa fay maa ngi koy woo new nee naa ko mu ñëw jàpp si làmb ji dafa metti waaw entraînement yi metti na affaire yi kii na cata na si ñëw jàppaat dugal loxom baax yàgg na see jàpp boobu ba léegi nii moo ngi ciy jàpp ni ñuy entraîné na si jàpp nii si bépp côté di woo ñëpp waaw waa ñetti mbaar maa leen di woo Gunaas Darkase Ceddo Jalza ñëpp maa leen di woo bépp bépp uude bi liggéey daal maa ngi lay woo si combat bi uude. kontaan nañ bu baax waaw di bëggee ñëpp. xam naa nañ la dalalaat yaa sa adversaire incha allah benn si émission yi di ñëw si Gaston Peu yi kon. tey mais maa ngi ñaanal sama yaay nag fanu mu am wër ak bépp yaay. amiin waaw ak képp am reef teral sa yaay maa ngi lay ñaanal nga am fanu gudd ak wër. amiin suñu borom sàmm ñëpp. gaynde coupe d'Afrique bi ñu jël yàlla na ko borom def jàmm tam nekk lu jik bu mu fi indi ay bu mu fi indi musiba yàlla na ko suñu borom def xéwal ak naataange ba ñu jël ko coupe du monde di ñaanal ñëpp jàmm naan jërëjëf Serigne Saliou jërëjëf Serigne Saliou. waaw kon tey mbokk yi loolu la woon ñu dalaloon Thiatou Walo waa team Instagram ñu ngi leen di bëggee bu baax jël nuyoo bi di ko teg si loxo Serigne Diour Dev ak euh, Sakho Thiapathioli ñu ngi leen di bëggee bu baax di nuyu Naar aussi tamit di nuyu Penda Mor gars yi nekkoon si ginnaaw kon gars yi beneen yoon incha allah. production présente.